rapidement ñu dalal dernier dernier bi sañ bi ñëwal ñëwal yegsil yegsil yegsil yegsil ci biir sa sañ bi moo mënta woon ñàkk bañ a feeñ télé laa ilaha illallah ay ca bisimilah waxtu bi des na fukki minute ñaar. non non waxtu bi des na juróomi simili jëlal micro bi voilà comme ça ñu ñu nee ah, bu jubee gare des Cornets. dëggal yaa xalifa yaa xalifa. tijaanu yaa xalifa yaa xalifa tijaan loolu dëgg la yaa borom tàkkusaan waaw tijaan mooy sama maam yaa xalifa yaa xalifa Sëriñ Babacar yaa yor tariixa bi yor shariixa bi yor yaa yor leneen yaa tax ñun bojjoo yu nu maw ñun du nu xaare ku bëgg Sëriñ Babacar xalifa waaw Tijaan lay xalifa ah, yaa xalifa Tijaan Sëriñ Babakar ni nga mel ci nit ñi raw na suukar feeñ ci ndox duma laaj ndi xam na ah, lépp siire la koy àggale waaw siire waaw mu ñëw ànd groupe bi tabarkala am programme sëñ mhm. euh, ngi waajal mu nuyoo waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu xanaa ñu indi nuyoo xadara Tiwaawan rek mhm. nga nekk ci mhm. ni moom lañ ma tuddee muy caat may caat. Oh, waaw tabaarakallaahu <laughs> ki dem rek la ma. Eh, ma tamit may kumba. ku nekk tamit mu naan may caat. di la nuyu nag yow xaaj Pape Hann nga xam ni ñëpp la bëgg ngir yonent bi sallallaahu alayhi wa bis bi daal nii la tëddee. soxna mu kël soo mbay di yaayu daara ji kala kala baax nga xam ni moom laa way woy woow xaju fi mhm. waaye moom mos ci tuuti rek kala yaayu daara ji ay papaam kala mooy yaayu daara ji moom moo mayoon tàkkusaan googu nga xam ni eh, ndokkeel ci sëñ Babacar Si mhm. ñu yaatal ko nag def ko tàkkusaanu Serigne Babacar dimanche le 2 dimanche le 2 lay doon incha allah ñu ci woo ñëpp invitation bi daal mooy képp koo xam ni am nga yëg ci sëñ Babacar. sa carte ngi noonu. ku may waxtaan. Eh, Serigne Mame Malick dana fa teew. bu Serigne Mansour borom daara. kuy firi. kuy firi alxaaji Pape André. <laughs> Eh, eh, dinañu ñëw kon. incha allah kon daal soppe yëpp ñu fekk ñu tuyaawoon. le deux ci bisu Pape Malick Mbaye. maanaam 100 pour cent Pape Malick yi ne ci biir réew mi. am na ñu jóge bitim réew. ñëpp fekk si la tuyaawoon. bi sax ci bëgg Pape Malick xale yi Pape Malick mu ngi noonu ak doomu Pape Malick njabooti sëñ Babacar jërëjëf incha allah uh, woote bi ca Tiwaawan lay doon waa dinañu ñëw uh, ñun ñëpp uh, def suñu suñu sañse comme nañu ko rek daal di bëggee xeeñ udd bu neex daal di wuy si kon ci woote bi